seen ñi mu fàttali leen rek mooy responsable PRP euh, chargé nekk secretaire général chargé de la communication digitale bu Déthié Fall euh, président DG par rapport ak lépp lu fi xew huit mois moo des ñu jëm ci élection yi sa leader Déthié Fall moom moo ngi koy waajal bu baax. yan taxawaay ngeen foosee amal ngir tey nguur gi une fois ñu fal leen lan ngeen foosee ne taxawal ci dëkk bi. yàlla dafa dogal tey tey tey may wax yow ñun ñooy seul parti politique boo xamante ne dafa organiser séminaire des cadres cadres yi plus de 300 cadres réunis wu pour compléter e terminer le programme toog nañ trois jours je pense que yéen sa couvrir ngeen ko. Mm. ñu waxtaan si tout les aspects économiques sociaux tous les aspects de la vie. pour xool nan la ñuy def moom laa lay expliquer léegi de manière extrêmement pragmatique et prête à l'emploi loo xamante ne dañ ciy pare rek jug def si loolu la suñu cas de référé je pense que ñun ñooy seul parti politique à ce jour bu ko def mm-hmm. donc ñun ñooy le seul parti politique bu pare pour gouverner dès dès dès le lendemain bu ñu toogee prêter serment juste après on est sur le sur les sur la matérialisation de notre parce que ñoo ngi ñoo ngi dégg mu naan moom suñ jotee ci euh, suñ ko joxee woole ba jox ko réew mi rek da koy changé wax ji yomb na de. changement bu gaaw a gaaw a gaaw. yomb na de xam nga lan mooy changement bi mooy li muy def du lu ñu lu lu lu lu extraordinaire dafa simple fi sénégalais yi nekk secteur d'activité yi sénégalais yi nekk fa nga yóbbu alalu Sénégal. si sénégalais ngay def alalu Sénégal doo ko jël extravertir ko jox ko ñeneen ñoo xam ne duñu sénégalais. gën a leeral. tey par exemple dañ ne la ñun dañu gëm industrialisation ñu gëm ne bu ñu faloo dañuy dem vers l'industrialisation mooy tabax ay sociétés yu mag a yoo xamante ne li mu mën a jël ci ay liggéeykat dana door du doon benn ñaar ñetti ñeent te bu ñu jugee ci loolu parce que loolu bu xësee am industrialisation dafay drainer l'économie tey uude bi nga xamante ne moo nekk fii Médina di defar benn dàll ñaari dàll ñetti dàll bu demee jënd benn der deru bëy wala deru xar wala deru nag dina toog un mois demaat jënd beneen donc tannerie bi nga xamante ne mooy defar der boobu par benn la mun jaay ñaan or bu ñu fexee ba am industrie boo xam ne dafay defar 100 chaussures wala 200 chaussures 200 paires de chaussures defar sac defar ceinture siège yi ñu toog mu defar ko defar tapis kooku bu tannerie bi bu munee defar benn der dina defar 500 der 500 der yi ay loxoo koy def ak ay nit der yi ay nit ak ay loxo ñooy dem wuti ko buuse ba nga xam ne mooy defar euh, mooy rey nag bi dana gis ne nag yi may rey ak xar yeeg bëy yi seeni der am na valeur jeunes yooyu ñëw ramasser ko ñëw yóbbu ko automatique scène de productivité bi dafay gën a yaatu dafay gën a efficace xalaat yu mel noonu ñun la ñuy xalaat tey ku ne xam na ne tabaxee terrain boo xam ne dafay euh, raay boo xam ne day wër Sénégal xam ne les grandes villes du Sénégal raay yi dafay jaar ku ne xam na ne main d'œuvre bu baree baree baree lay créer xalaat yu mel noonu lañ am beneen bi mooy ñu dañu gëm entrepreneuriat dañu gëm ne nit ku nekk am na xarañte xalaat bu nekk ci moom am na bëgg-bëgg ak bëgg liggéey bu nekk ci moom il suffit de créer environnement bi nga xam ne moo koy permettre mu exercer moom li mu xam ak li mu bëgg a def nga accompagner ko encadrer ko loolu day gën a yomb parce que booba dëkk koom day am. Mhm. fii rek Sénégal nga dëkk ñu dëkk bi dafa manqué ndóol tumuranke ak souffrance ñu jël ko attribuer ko le premier magistrat la euh, di Sénégal jox ko Sénégal ne la ñàkk tumuranke euh, xiif sonn. lañ tuddee njiitu réew mi loolu signe bu extraordinaire la bu bu jar a la. bu ñu ñëwee nag tendance bi mooy mooy changer ko indi naataange indi gëm sa bopp indi wóolu sa bopp indi respecter sa sa sa bopp. te loolu mooy construire le bon citoyen que nous que nous voulons programme moom ñun yaakaar naa ne kese ñoo ko fi pare beneen bi. mooy dañu nekk ci contexte de combat gis nga balaa nga naan ne fa programme bi balaa nga koo appliquer. nga nekk ci démocratie donc mënuñu dugg ci leneen walla feneen walla nanaan te combat bi gañawuñu ko. loolu moo tax sax ngeen tijji l'opération kaay kaay bokk. effectivement coopération la opération la boo xamante ne mi ngi déroulé sur l'étendue du territoire may occasion la ma remercier tous les militants et responsables des autres départements du Sénégal tous les militants et responsables du PRP ki nga xamante ne jour et ñu ngi ci terrain bi di waajal seen bopp di waajal victoire parce que ñun dañu nekk ci dynamique de victoire. nan la ñuy def ba victoire bi rafet si loolu lañ nekk parce que il serait vraiment selon sénégalais yi dem di am ay 42 pour cent et 32 pour cent l' objectif c' est de plus de cinquante pour cent pour alléger alléger sénégalais yi voté voté waat dafa metti nan la ñuy mobiliser les sénégalais pour que ku kaaw ñu dem suñu yoon. Mm-hmm. opération Kaay Bokk bi nga jàpp ne euh, moo ngi dox moo ngi indi militants yi wala nan lay. dama lay jox rek quelques indicateurs yàlla dogal na yéen saa yi ñu xewlee. média yu médium yu mel ni yéen da ngeen di ñëw opération kaay bokk bi moo wane ne bi président di déclarer sa candidature on n'a même pas voulu inviter les responsables on n'a même pas cherché même à les inviter le président dafa juste parce que nous pensons que c'est une déclaration simple dajeek la presse wax leen ne leen man bëgg naa nekk candidat te bu ma nekkee candidat fii laa bëgg a yóbbu Sénégal c'était juste l'idée mais bi l'idée bi responsable yi yëgee ne président dafay def déclaration fu ne la Sénégalais jóge avec ses propres moyens mobilisé wu ñëw taxaw ña nekkoon foofu yëpp gis nañ ne keroog bi président Déthié Fall ne je serai candidat bruit bu extraordinaire ñun sax ñu tiit dañu foogoon dafa am lu xew nekkati militants yi ñoo daw si suuf di yuuxoo ko tax. est ce bokkoo leen ci responsable yi nga xam ne aussi dañuy àbb ay militants wala ngeen jëlee militant Diourbel indi leen Dakar. non non non non. bëri na ci yéen politiciens yi. non non non am démarche scientifique. ñun rek ñoo fi nekk tey jii may waxee yow parti boo xam ne bu ñu newoon parrainage léegi léegi léegi suba ñu ngi déposé. da ngeen naan def seen pare wala. non loolu opération kaay bokk moo ko indi. c'est-à-dire que dem nañ ci sénégalais demati sénégalais demati tey bu ñu taxawee bëgg parrainage sénégalais ñooy rang di ñu jox parrainage. mais suñu waxante dëgg da ci faal tey euh, ñu bëri suñ ko xamee tey euh, Idrissa Seck moo tax ñu xam ko pour ne Idrissa Seck la woon. Idrissa Seck ko wax ñu bëri dañ koo jàpp ni système bi la bokk est-ce que moom it mën nañ koo génn ci système bi. le président Déthié Fall encrasé wul tëjul boppam ci idéologie yooyu benn idéologie la mais koo xam ne ah, ci système bi la bokkoon. non non il fut un des premiers collaborateurs du président Idrissa Seck servir ko avec loyauté servir ko avec engagement wane fa efficacité ak respect jële parti bi ci somnolence. yóbbu ko ci niveau bu extraordinaire parce que en deux mille 2019 ku la waxoon ne le président Didier le président Idrissa Seck dana nekk deuxième bu nga tey ci tuuti mais dafa am liggéey bu am solo bu mu liggéey bii le président sa nekkul Sénégal wala feneen ak feneen moom dafa am liggéey bu mu liggéey sénégalais ràññee ko ci liggéey bi mu liggéey moo taxit bi mu demee ba tànn jot entre le Sénégal ak leneen dafa tànn continuer yoonu si loolu lañ nekk nekkul ci tëju ci kii lenn la gëm lenn la gëm mooy fan la sénégalais nekk lan la sénégalais bëgg ak nan lañ koy defee nekkul ci leneen hmm. concept yooyu noonu après dina ñëw mais pour l'instant dafa nekk xam nga ku xiif kenn du ko xaarloo nag bu ñuy nag bu ñuy defar hmm. da ngay defar fonde léegi jox ko mu téye lekk biiram fees nga sant ko mu liggéey nga doog dem xool nag ba xam da ngay uti nag nag bu mag wala bu ndaw bu ñuul boola bu weex loolu yegg seen buñ